ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Sidi Mbacké xalif waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké soxna Kiné Mbacké bintu Cheikh Abdoul Ahad mooy am mbégte di leen yëgal màggaluk Serigne Abdoul Ahad Mbacké gi muy amal le 27 juin 2019 dëppoo ñaar fukki fan ak ñett ci kor yi wii màggal gi nag mi ngi ko amalee ci këram gi nekkee ci Daarul Manaan soxna Kiné Mbacké bintu Cheikh Abdoul Ahad mu ngi yëgal màggal gi mbooleem njabootug Serigne Touba yi bàyyiwul kenn di ko yëgalit it mbooleem cheikhu Serigne Touba yi waaye bàyyiwul mbokki jolof-jolofam yi ci njiitalul Idrissa Thiam président naa Inakwa jàppoo ak mboolem mbooleem waa Inakwa jàppoo yëpp mi ngi ko yëgalit it mbooleem taalibe yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew programme bés bi nii lay tëddee bu ñu xëyee daañu fa amal njàngam alxuraanul karim ak xasida ay bernde bu ginnaaw tàkkusaan ñu amal fa waxtaan wu yaatoo yaatu ba léegi màggal gi soxna Kine Mbàkke mi ngi koy yëgal daayira Masaalikul Jinaan bi nga xam ne saa su ne mook ñoom ñooy ànd liggéey bi bés baa ngi noonu di màggaluk Cheikh Abdoul Ahad gi soxna Kine Mbàkke bintu Cheikh Abdoul di ko amalee ci këram gi nekkee ci daaxul ma naan mu a nekk le 27 juin 2019 dëppoo ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori wi soxna Kine Mbàkke di ko na aajo ci barkeeb Cheikh Abdoul Ahad Mbacké